alihi wa sahbihi ajmain di sant sunu sant sunu borom subhanahu wa taala ci xéewal yi nga xam ne defal na ko ay jaamam bokk na ci loolu mooy mu yónni ci ñun ab yonent boo xam ne mi ngi jàng ci ñun ay aayaam dañu jàngal téere bi dañu jàngal xikma yuallimuhumul kitaaba wal xikma bokk na ci xikma boobu mooy sunnaam sunnaam soosu it saxaabatul kiraam ñi wattu woon alquran wattu woon nañ sunnaam ba jot lente ko génération génération ba mu ñëw ci ñun alhamdulillah ba tombeeg it ñi nga xam ne ñoo leen bind ay téere ñu dajale ci benn téere yi ay junni junni xadiis bokk na ci ñooñu imam nawawi rahimahullah bi nga xam ne moo bind téere bi ñu tiim di riyaadu saalihin mu defal ko ay buntu ñu ngi tolloon ci buntu muraqaba baabul muraqaba te mooy nit ki sa lépp rek nga bàyyi ci xel sa borom jëloon nañ ci la nga xam ne mooy ay ayat ak ay ahadis ba yegsi ci ñetteelu xadis boobu te xam ne mooy juróom-benn fukkeelu xadis ak ñaar ci téere bi fi muy waxee an ibnu abbas radiallahu anhuma qaala kuntu xalfa nabi salallahu alayhi wa sallam yowman ñu ngi noonu day xool baabul muraqaba nga xool juróom-benn fukkeelu xadis bi ak ñaar muy xadisu saalis ci bunt boobu an ibnu abbas radiallahu anhuma kon ñu bàyyi déglu njàng mi avant ñuy dem ci leeral gi insha allah
رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
ci sunu bind bu njëkk boobu ibnu abbas radiallahu anhuma te mooy moom ak baayam abbas ñépp ay saxaabi lañu gis nañu ni xale la woon yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam bi faatu amagul ñaar fukki at nee na bis kuntu xalfa nabi sallallahu alayhi wa sallam yowman nekkoon naa ci gannaaw yonent bi mu togg ma ci benn waruwaay benn bis fa qaal mu ni yaa gulaamu inni uallimuka kalimaat ey yow ngóor si maa ngi lay jàngal ay kàddu ihfazillaha yahfazka wattul yàlla yàlla wattu la ihfazillaha tajidhu tujaahak wattul yàlla nga fekk yàlla mi ngi sa kanam di la aar ida saalta fasalillah booy ñaan ñaanal yàlla kese wa ida staanta fastain billah booy dimminiku dimminikool ci yàlla kese waalam ann al umma xamal ne lii di xeet bi te mooy lam ci jublu rek mboole mi mi ndaafa law ijtamaat ala an yanfauuka bi cheyin suñ dajewoon ngiree ñu jëriñ la ci benn mbir lam yanfauka illa bi cheyin qad katabahu llahu lak lu dul ci benn mbir boo xam ni yàlla subhanahu wa taala bind na ko ñeel la mbokk xadis bi lim ñuy jëkk a jàngal sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni woon ci mboolem nit ñi da'waam ba ak jàngileem ba amul benn catégorie gum ko jagleeloo du mag ña du ndaw ña du góor ña du jigéen ña loolu moo tax ba da ngay gis jataay yi bu mu nettali ay jigéen wax bee ay góor a wax bee ay yeneen ñooy wax ñu ngi ci baabul muraqaba ci ay ci xadis 62 ci téere bi loolu moo tax bis sallallahu alayhi wa sallam dara jee ko yàlla mayoon teewul mi ngi war benn waruwaay yeneen ci bi daana war giléem daana war la nga xamee ni nii moom mooy ay bax la ak yu demee noonu war na togg ibnu abbas ci gannaawam bi ñu demee ba ci yoon yi mu ne ko kaay ma jàngal la ay kàddu te loolu ci wàllu pédagogie la tëbul rek ne ko nangam ak ci nangam ba def na ko maa ngi lay jàngal ay kàddu te lu bari yonent bi alayhi salaam na la doon def ak saxaaba ya comme ni yàlla waxe suñu borom ne naan hal adullukum ala kaza wa kaza xanaa du ngeen kaay ma tegtal leen nangam ak nangam su ko defee nit ki xolam ubbeeku mu bëgg a xam lool da ngay gis rek tey nit ki boo na ko woon ba demee ba ñëw ma wax la yàq nga yoonam parce que lu ne dana ko xalaat ki lan la ma bëgg a wax gis ngeen ala kulli xaal danaa la jàngal ay kàddu ba xelu xale bi ubbeeku jëm ci loolu mu dee na ko nag kàddu yi mooy lan wattul yàlla yàlla wattu la naka la ñuy wattoo yàlla mbokk wattu yàlla mooy wattu ay ndigalam ak ay tereem lim la digal nga def ca sa kemtalayal kattan lim la digal nga def ca sa kemtalayal kattan sunu borom nee na julli leen quumu lillahi qaanitin taxawal leen yàlla di ko toroxlu waaye léegi mënumaa taxaw naka lay def boo mënee toog nga toog mënumaa toog boo mënta toog nga tëdd ila axiri wattul yàlla ci tere yi heure boo gisee lu xaraam na sa xel dem ci yàlla ak loolu lu mu mën a doon mu ne lii de boo ko defee yàlla wattu la yàlla dana wattu sa jëmm yàlla dana la wattul sa alal yàlla dana la wattul sa diine te it mi ngi noonu mbokk sunu borom yàlla bu dee bi ngay ndaw nga nekk di ko jaamu yàlla moom moo lay garantiral sa jàmm ak sa sutura loolee ñu bàyyi ci xel bu baax amma jeunes yi ngay gis ñuy drogué woo ko agressé yu dema noonu seen gudd fan dana jafe même buñ guddee fan it gudd fan toroxtaange la ñuy gudd fan ihfazillah wattul ndigal yi ak tere yàlla yàlla wattul mi ngi noonu mu dellu na ko wattul yàlla da nga fekk yàlla mi ngi taxaw sa kanam di la défendre te sunu borom mu ne xaqan alayna nasrul muminin wareef la ci ñun ñu dimbali sunu jaam te mooy bu dee gëm nga yàlla ni nga ko war a gëmee def ay ndigalam def ay tereem ku la dal sa kaw yàlla la déclaré guerre yàlla ko wax ci beneen beneen xadis xadisul qudsi man aadali waliyan faqad baarazani bil muxaaraba koo xam ne sama waay nga dem dëkk ko bëri déedéet dëkkoo ko bëri man mii nga dëkk bëri gis ngeen wattul yàlla nga fekk yàlla mi ngi sa kanam di la aar mu ne ko soo demee bay ñaan ñaanal yàlla te loolu mooy bu dee ñaan gi dafa jëm ci ñaan koo xam ne néewu fa loolu moom keneen koo ñaan ko dul yàlla shirkul akbar la yaa muhammad defal ma nangam yaa abubakar defal ma nangam comme niñ ko miine suñ rajo yi télévision yi yàlla na la sëñ diw fay yàlla na la sëñ diw nangam mbokk loolu shirkul akbar booy ñaan ñaanul yàlla kese donte ne ne dagal na nga ñaan ko teewu waaye it ñaan nga day fekk ci lu munta ñàkk ay jullit problème mu àdduna ñépp ko am milliardaire président général kum mën a doon say mbir dee ko ñaan sa borom subhanahu wa taala yàlla sama nangam bii ma të sama nangam bi te ñaanal sa borom subhanahu wa taala léegi-léegi nag soxna mën na dem ba xott la foo xam ne islam du la tere nga ñaan foofu waaye ñu xam ne aslu ñaan bi cosaanu ñaan islam du ko bañ bu dul ci lor boo xam ne lor bu tar la amaa ñaan ko fi nekkul moom wax nañ ko sànq shirkul akbar mi ngi noonu wala ñaan ko dee dem ba ca bàmmeelu diw ah sama mbokk bi sëriñ mi ngi may nettali rek lu mu dégg ci rajo bi benn waaye di wax naan waaw ñi tariyaax yi nax dañoo ñàkk ñàkk xam rek dem ci tariyaax yi ñu lekk sa xaalis bi la nangam man soxla bu ma am damay dem ca bàmmeelu sëñ diw rek wax ko ko bala maa ñëw fekk mu faju bokk haza kooku shirkul akbar la julit buy ñaan du ñaan lu dul yàlla bu dee dafay dimbali ko dimbali ko ci commerce am ci tukkeem ci lu mu mën a doon su boobaa itamit doo dimbali ko lu dul ci yàlla ñu ngi noonu ndax yàlla rek am dimbal looloo tax ba bokk na ci li jullit di wax fukki yoon ak juróom-ñaar bis bu nekk am déet yàlla iyaaka naabudu lu ci tegu iyaaka nastain mooy yow kese yow kese ah waxul sax ne yàlla naabudu ko wa nastainu bik mi ngi noonu waaye déedéet yàlla yow kese la ñuy jaamu yow kese la ñuy demee ni ko na nga def loolu lu tax xamal ne ndimbal ci yàlla rek lay jóge gis nga mbooleem mbindaa fa ni buñ daje woon ne doon nit ak jinne ak malaaka bëgg laa jëriñ ci benn mbir mbir boobee duñ la ca jëriñ lu dul yàlla bindoon ci yow lu dul yàlla bindoon ci yow ñu ngi noonu xam nga feebar tous les médecins du monde réunis mënuñu fexe ba teggi feebar boobu abadan danga nekk ci ay problème bu mu mën a doon ak réer laam tiisam njàqare sunu borom yàlla kese kese moo la mën a xettali ci say problème boobu loolee jullit da ko war a xam looloo tax yonent bi alayhi salaam ba waa ji ñëwee ne ko bu neexee yàlla neex la mu ne ko ndax danga may booleeg yàlla ca mooy li neex yàlla rek mooy li am loolu kon mbokk mooy wàllu gu jëkk gi ci xadis bi ñu jël wàllu ñaareel bi incha allah
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا
ñaareelu wàllu xadis bi mu ne ko wani samau wa in ijtamau ala an yadurruuka bi cheyin su doon ñoom ñépp dañoo daje ngir bëgg laa lor ci benn mbir lam yadurruuka illa bi cheyin qad katabahu llahu aleyk duñ la lor mukk lu dul ci mbir moo xam ne yàllaa ko bind ci sa kaw ay mu nar a dal sa kaw rufiat al aqlaam yëkkati nañ xalimay ndogal ya wa jaffati suhuf waw na kayit yañ doon bindee wa fi riwaayati gayri Tirmizi am na benn waaw mu ne bokk kooku Tirmizi moo génne xadis boobu ci ni ñu ko jànge am na yeneen riwaaye yu xadis bi jaar yoo xam ne Tirmizi solowoo ko soo demee dana ca dolli ihfazillaha tajidhu amaamak wattul yàlla nga fekk ko sa kanam taarraf ila llahi fi raqaa na ngay xam jëm sa borom ci jamono yi nga nekk xéewal bul fàtte sa borom yaarifuka fi shidda su ko defee yàlla dana la xam ci sa jafe-jafe ba nga nekke waalam anna ma axtaaka lam yakun li yusibak xamal ni li la mooy nekkul woon mukk di la dal wa ma asaabak lam yakun li yuxti ak li nga xam ne dal na la mënuloo woon a mooy abadan waalam anna nasra ma asabr xamalit ne ndimbal mi ngi ànd ak muñ wa anna alfarja ma alkarb xamal ne da nga xam ne mooy xettali mi ngi ànd ak tiis wa inna maa al usri yusra wa anna maa al usri yusra xamal ne ànd naag jafe-jafe bu nekk li nga xam ne mooy ak yombal kon mbokk ñaareel bi mooy àdduna bi yépp daje nañu bëgg a lor benn waay looli dañ koo bëgg a feebaral dañ koo bëgg a xañ wërsëg dañ koo bëgg a rey mënuñu laa lor lu dul loo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko bindoon ci yow mu ne ko yàlla mi doon bind nag yëkkati na xalimaam ay lan doon bind bind na ko ba pare kayit yi ñu doon bindee kenn mënatu koo effacé kayit ya wow na koŋ loolu mbokk lu jullit war a xam na am sunu borom yàlla subhanahu wa taala doonte ne jox na jaamam yi responsabilité ci sabablu waaye naka neex rek mooy am jullit da ngay war a gëm ne dogalu yàlla ñeenti yi danga koo war a xam mooy yàlla xam ne lépp luy nar a am ci kaw suuf ba ilaa yawmi diin gars yi loolu bu ko yàlla xamul ndax yàlla am gën a manqué ah kay yàlla bu amee lu mu réere xanaa subhanallah na am kon yàlla bu doon am na lu mu réere rek loole da ngay gis ni dafay mel ne ko manqué la moo tax sunu borom mu ne xam naa lépp xam na li jaama mi nar a def lépp benn ngoog yàlla jàll wa ala bind na lépp loolu nga war a gëm bind na lépp nga gëmit ne yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne nii lu ko soob moom mooy am lu ko soobul du am amul lu waay di def lu dul ni coobareg yàlla la loolu tax mbooli mi jàmm bu ñu daje woon bëgg a rey benn ñett wala bëgg koo jariñ mënuñu ko tant que soobul yàlla subhanahu wa taala gannaaw bi jëf yi jaam yi di jëf yépp yàlla subhanahu wa taala moo ko dogal muy nar a am nam ko dogale dara du ci yokk say fan yi nga war a dund li nga war a lekk xattaa jéego yi nga nar a def xatta lu mën a doon lépp yàlla dogal na ko ba pare loolu nag moo tax mu ne ko duñu la mën a lor lu dul loo xam ne yàlla moo ko bind ci si ci yow nga war koo gëm xadis boobu gis nañu am na ñeneen ñu ca dolli ca mooy xamal yàlla ci jamono yi nga nekk xéewal bis boo amee jafe-jafe yàlla xam la te itamit mbokk jullit am na ñoo xam ne tànk lépp ngi dox dañuy fàtte seen borom ay jullit jamono yi nga nekk xéewal ci nga war a toroxlu ci kanamu yàlla di sant xéewal yi di ko ñaan mu aar la di ko ñaan mu xettali la di ko jaamu-jaamu gu sell su boobaa bis boo amee jafe-jafe boo woowee yàlla yàlla wuyu la xoolal yonent yàlla yunus alayhi salaam keroog ba mu nekkee ci biiru jën ba fi zulumaatin salaas kasu boo xam ne moo fa mos a dugg kenn du fa dugg ba ilaa yawmi diin wala ko fa dugg yi doo ko nettali say mbokk am déet muy biiru jën ci biiru géej waaye bi mu wooy yàlla laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin sunu borom du ko wuyu ba mu koy wuyu beneen aay la mu wax walaw laa annahu kaane min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi ddin yuba la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun bu dul woo nag ne yunus alayhi salaam da daan woo yàlla ca jamono wam nekkee xéewal di ko sant ka bàkk su bàyyi woon ba jafe-jafe am mu koy doog a woo yàlla du ko wuyu fa lay sax ba gis ba ñuy dekkal jaam yi preuve bi mooy kan mooy firawn firawna laanatullahi alayhi mi ngi nekkoon ci mbewteen ci ay xéewalam dem nag ba vague bi tiim ko mu xam ne lab donga des mu ne amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu israil man day gëm naa ne kenn yeyowul ñu koy jaam lu dul ki banu israil di jaam ndax dana ko jëriñ seen borom na ko ah al an léegi da ngay doog a reconnaître lool mi ngi noonu su ko defee kon jamono bu la yàlla xéewalee del sant yàlla ci xéewal googu del tudd yàlla di bàkk yàlla di ba su ko defee bis boo amee jafe-jafe soo woo yàlla yàlla wuyu la ko mooy taarraf ila llahi fi raxa yarifuka fi shidda mu ne ko it xamal ne li la waalam annama axtaaka lam yakun yusibak li nga xam ne daf laa mooy mënula war a dal abadan waa ji ma ngay dàq benn baccalauréat ya masalan jéem na ko jéem am mënu ko am bu dee yàlla tudd ko ci moom c'est boo nga def cinquante fois examen bi doo ko am abadan waa ji dafa bëgg a tukki yàlla tudd ko abadan doo ko am abadan lépp loo xam ne nii mooy na la mënula war a dal waaye li dal ci yow it mënuloo woon a rëcc abadan moo tax jullit du wax naan law anni fa'altu la kaana kaza wa kaza heure bu la mbir dalee ci échec boo am ci say mbir da nga naan qaddara allahu wa ma shaa faal yàlla moo dogal li neex yàlla mooy li am waaye bul wax su ma defoon nangam gis nga boo defoon nangam it loolu rek am de ñu ngi noonu sa doom jël feebar na yóbbu ko ko hôpital sàngam dee na su ma yóbboon dama koy indi fii boo ko yóbboon Washington rek mu dee mi ngi noonu moom li la dal mënu la woon rëcc am maa nag boo xamagul lu yàllay dogal da ngay sabab lu sa kéemtalal kattan li la yàlla dogal na nga xam ne lii la yàlla subhanahu wa taala dogal bokk na ci loolu mu ne ko xamal ne ndimbal mi nga ànd ak muñ heure booy dimbali koo ci yàlla bul na rek tey woo naa yàlla gisuma ndimbal nga ne ah accam déedéet innamal nasru ma sabab loolu tax yonent bi alayhi salaam ne yàlla dana wuy jaamam bi maalam ya jàll fii yàkkamti woon ñu ne ko ah yéen yàlla yéen yàkkamti ni muy ni muy demee mu ne xanaa nga am problème ñaan yàlla wuyiwu la nga ñaanal wuyiwu la nga dem ba daal di lottu tàyyal su ko defee jullit lépp loo xam ne yaa nga ca sax ca di ko sabablu di ca ñaan yàlla bu ca découragé abadan mi ngi noonu la nga xamee ni it moo ci mujj mooy xamal ni lii di aw tiis mooy lii di ubbeeku alfaraj muy xettali mi nga ànd ak njàqare jullit heure boo jàqee bul jàpp ne c'est fini comme na ko bani israël defe woon bañ ànd ak Moussa dem ba ci géej gi dañ ne ah inna la mudrakoon jeex na tey firaw na rey ñu ñun ñëpp Moussa ne leen kalla inna ma ay rabbi léeg-léeg ma ngi ànd ak sama borom loolu taxit heure boo nekkee ci tiis lu tiis ba tar tar tar xamal ne mi ngi ànd ak ubbeeku yàlla ak xettalik yàlla na sa xel dal ci loolu comme na mu koy waxee ne inna ma al usri yusra bépp jafe-jafe boo gis rek bu la yàlla teg ak yombal ma nga ca wet la heure bu neexee yàlla mu changé mi ngi noonu heure bu neexee yàlla mu changé loolu mooy kaddu un la xawla wala quwwata illa billah amul kenn ko am pexe mën a wëlbati mbir amul ko am pexe mën a yeggeele ci mbir ku dul yàlla subhanahu wa taala moom la yonent bi alei salaam woon ne woon kanzun la min kunuzil janna julit bu gëm loolu mu sax ci xolom way laa xawla wala quwwata illa billah pexe ak kattan yàlla rek ko am nee na loolu trésor la ci trésor yi aljanna yi yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko
عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشهر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات
حديث ينتل به باب المراقبة من أن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر yéen de yéen a ngi jëf-jëf yoo xam ne moo gën a sew ci seen bët yi ci karaw kunna naudduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min al mubiqa te ñun dañ ko doon compter ci jamono yonent bi alayhi salaam ci la nga xam ne day alagaate rawahu buxaari wa qaala al mubiqaat lay alagaate muy al muhlikaat ay mooy lay alagaate rek mi ngi noonu kon mbokk anas ibnu malik bi it mooy xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayoon na ko mu dund téeméeri at ak nangam daje lu bari ci ñoo xam ne gisuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gis ñi ngi soppeeku yu bari ñi ngi koy def mu woyof ci ñoom am na ñuy lekk riba jàppuñu ne dara la ñee nga ca marché bay naxante jàppuñu ne dara la am na ñoo xam ne nii wax mi ay fen jàpp ñu ne du dara fausse rendez-vous du dara mu ne nag de yéen a ngi def mbir yoo xam ne pour yéen dafa sew róot comme karaw ñun jamono yonent bi jàppoon nañu ku ko def rek alko nga jaan jamono yonent bi jàppoon nañu ku ko def alko nga te muubiqaat muhlikaat mooy liy alak nit ki àdduna ak àllaaxira loolu it di xadis boo xam ne mbokk ku nekk ci ñun war nay bàyyi xel li nekk ci téere yi lan la yàlla ak yonentam xaraamal ak li xew ci société bi société bi dañuy dem ba mujj ay mbir ñu banaliser ko riba boobu tey doomu aadama yi jàpp ñu ne dara la carte googu tey ñu bëri jàpp nañ ne du dara xatta portable yi SMS envoyé quelque nangam nangam au numéro tel tel tel qui peut gagner une voiture nangam nangam yooyu yëpp mbokk ay carte la mais ñu bëri jàpp nañ ne loolu du dara tey jii xoolal nuyoo góor ak jigéen akolaat góoru jaambur ak jigéen jaambur jigéen génn na futt futtaaral yaramam yépp nekk ci biti yooyu yépp da ngay gis ne yàgg na sunu société ba nit ñi jàppatuñ ne dara la te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bépp jigéen bi mel noonu kooku nitug sawara la di xadis bu wér muslim solo mais ñu bëri dañ jàpp ne dootu dara loolu it di mbir boo xam ne fu ñu war a toll di réviser waat sunu bopp di xool la yàlla araamal ak société bi ñuy dund lépp loo xamee ne nii nekk na ci ci neexul yàlla ñu xam ne la naqari woon yàlla ca sahaaba ya du neex yàlla ba ilaa yawmiddin waaye la yàlla bëggoon ca sahaaba ya du naqari yàlla ba ilaa yawmiddin yàlla na yàlla yombal loolu ci ñoom
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة وأصلها الألفة عن أجل
كن سن حديث جرمين في المراقبة باب المراقبة أبي هريرة ما قينتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال inna allaha taala yaxaar yàlla day day fiir wa gayratu llahi taala an yatiya almaru ma xarama allahu alayhi fiir yàlla mooy jaam bi dikki la yàlla araamal ci moom muttafaqun alayhi mi ngi noonu moom lay wax wal gayratu bi fatxi gayni wa asluha anafa ca mooy gayra boobee la nga xamee ne nii mooy cosaanam mooy foñ mbir bañ ko loolee da ngay gis ni muy fiiraange boobu bokk xadis bi li ñuy jëkk a jàngal mooy sunu boroom moo jukkowoo la ka neex ci ay jukko bokk na ci loolu mooy dee fiir ndax sunu fiir dafa mel ni fiirug yàlla laa wallahi sunu boroom dara melul ne moom ay jëfam dara melul ne moom sunu borom subhanahu wa taala amul soxna amul doom amul lu muy fiire ana kon fiirug yàlla lu ma doon yonent bi alayhi salaam fiiri ko mooy yàlla dafa tëral ay mbir yu xaraam sàngara carte riba njaaloo kaza wa kaza léegi nag ab jaamam heure bu demee ci loolu mi ngi mel ne tey jii borom kër bu gisoon kuy dugg ci néeg soxnaam dafa def na ko su dul noona na muy mere noonu la yàlla di mere ci jaamam di dem ci loo xam ne da ko xaraamal loolee kon di mbir boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel su ko defee yonent bi alayhi salaam nee na nit ñi li ñuy fiir fiir fiir du ñu dàpp yàlla heure bu gisee jaamam bu góor di njaalo wala jaamam bu jigéen di njaalo mer mi muy àndal ak fiiraag mi muy àndal doomu aadama mënul dab loolu su ko defee kon it nit ki wurul yem ci bàyyi li yàlla xaraamal waaye da ko war a sori am déet ko war a sori ndax yàlla daf ci fiir te gis nañ ne ko fiir du yem rek ci bañ nga njaaloog soxnaam waaye day bañ it bul jege soxnaam di ànd ak soxnaam di dugg nekk soxnaam mi ngi noonu kon it yow lu xaraam xamal na yàlla da caa fiir bul jege sangara bul jege carte bul jege riba bul jege lu mën a doon ci bakkaar yi loolee kon di xadis bu mag boo xam ne ku ne ci ñun war na ci bàyyi xel mi ngi noonu
رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها
xadiisu juróom benn fukk ak juróom ci téere bi ba tey abi hurayra moo koy nettali annahu samia annabiya salallahu alayhi wa sallam yaquul dégg na yonent bi salallahu alayhi wa sallam di wax ne day inna salaasatan min bani israil abras wa aqra wa ama ñett day ñu bokkoon bani israil kee dafa doon koo xam ne dafa yor feebaru ngaana kee yor feebaru leel mooy bopp ba amul dara ci karaw kee doon aji sëlmaxa araada allahu an yabtaliyahuma sunu borom yàlla nag bëgg leen a nattu fa baasa ilayhim malaka mu yónni ci ñoom benn malaaka fa attal abrasa mu daal di dikkal ka nga xam ne ak ngaana daa nekk ci moom fa qaala ayu cheyin ahabu ilayk mu ne ko yow tey lan nga gën a bëgg ci àdduna qaala lawnun xasan wa jildun xasan mooy daal ma am melokaan bu rafet am der bu rafet loolu la moo ma gënal ci àdduna tey wa yazhabu ani lazi qad xasirani naas mu dem ci man li nga xam ne nit ñi seexloo nañu ma ko fa masahahu fa zahaba anhu xasaruhu wa utiya lawnan xasana mu daal di koy masaa rek mboolem sobe bu nekkoon ci moom deñ yàlla may ko la nga xam ne melokaan bu taaru la qaala fa ayul maali ahabu ilayk mu ne ko waa léegi nag alal loo ci gën a bëgg qaala al ibil mu ne ko ay gëléem aw qaala al baqar wala mu ne ko nag chakkar raawi kooku sikk sàkk na waaye fa utiya naaqatan ushara ñu may ko gëléem boo xam ne ma nga ca fukkeelu weeru ëmbam ay leemu wasin fa qaala baarakallahu laka fiiha mu ne ko nag yàlla na yàlla barkeel la lii mbokku xadis bi di xadis bu gudd boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ci dóoral misaal jullit ñi ci xeet yi ñu jiitu woon yu bani israil xam ngeen bani israil ñooñu jiitu ci téere ba yàlla yónnee seen maam yonente la yanquba ak yonent dañul ci ñoom bani isa ibnu maryam looloo tax ay kawtéef yu bari jaar na ci ñoom am na ci yu alquran nettali am na ci yu sunna nettali am na yoo xam ne ci seen téere la nekk loolu nekk seen téere yépp seddalikoo na ñetti mbir mooy la ca dëppoog alquran dëgg la la ca alquran weddi fen la am na ci yoo xam ne kenn amul preuve ci ne dëgg la am du dëgg lu demee noonu jullit da cay gàttal doo ko gëm doo ko wecci am maa nag xadis bi moom yonent bi moo ñu ko nettali mu wér ci sunna ne daloon na ci bani israil ñetti nag ñetti nit dëkk ci benn dëkk kenn ki dafa yor ak ngaana yaram bi yàqu ki ci des bopp bi moo ne fondang xam ngeen ci jamono yu jëkk ya karaw dafa nekk taar ñu ngi noonu rawatina ci yenn société yu bari ku amuloon karaw doo bëgg a génn fenn ñetteel bi dafa silma yàlla subhanahu wa taala bëgg leen a nattu mu jëkke ci ki yoroon feebaru ngaana gi mu ñëw wàcc ci moom ci melokaanu nit da ko waay yow ah lan nga gën a bëgg ci àdduna mu ne ko li ma tey de li ma gën a bëgg ci àdduna mooy sama yaram bi rek normaloo ma yoroon der bu rafet loolu laa gën a bëgg ci àdduna bokk li lim ñooy jàngal mooy parce que doomu aadama trésor bi gën a rëy ci yow mooy la nga xam ne booy sangu doo ko suñu comme ni ko mag ñi di waxee nga noonu nga doomu aadama ne naan su ma amoon nangam su ma amoon nangam mais gis nga tey bu la yàlla xañul ay bët doon nga bëgg alal jooju yépp nga jox ko ca am bët am déet bu la yàlla xañul ay tànk da nga bëgg joxe àdduna ngi ci biiram pour am tànk lan nga gën a bëgg li ma gën a bëgg mooy sama der bii nga xam ne ku ma gis seex lu ma daw dama bëgg rek mel ni ñépp yor der bu rafet mu ne ko ah mu ne waaw mu raay ko rek la nga xam ne mooy yaram bi yépp ne pelet wér te mbokk loolu yàlla jaarale na ko ci malaaka boobu indi melokaanu ñëpp mais defe loon na ko Isa ibnu Maryam Isa képp ku masal ànd ak ngaana wala silmaxa wala feebar bu mu mën a doon dalay raay rek nga wér dalay raay rek nga wér pele gis ngeen léegi waa ji wér ne pele fi muy kontaane li waa ji na ko waaw loo gën a bëgg ci alal mu ne ko alal mu ne ko mu ne ko xanaa giléem waa ji dem dikk indil ko giléem guy waa ji wasin ne ko yàlla la yàlla barkeelal sa giléem gi gis ngeen ñaanal ko ci barke léegi daal di koy tàggu dem yoonam mi ngi noonu
فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حامة وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من الفقر ولهذا واد من الغنم
mu ne fa atal aqraa noonu la dikkalee ka nga xam ne dafa leeloon bopp ba amul dara ci karaw fa qaala ayu cheyin ahabu ilayk mu ne ko yow lan nga gën a bëgg tey ci àdduna qaala chahrun xasan wa yadhabu anni hada alladi xasirani nnaas mu ne li ma gën a bëgg rek mooy karaw gu taaru ba mu denc man lii ma nit ñi seexloo fa masaxahu fa zahaba anhu mu daal di koy raay rek loolee dem wa utiya sha'ran xasana mu daal di sax ci saa si karaw gu taaw qaala fa ayu maalin ahabu ilayk mu ne ko alal nag lu ci gën a bëgg qaala al baqar mu ne ko li ma gën a bëgg mooy nag fa utiya baqara baqratan xaamila mu jox ko benn nag bu ëmb wa qaala baraka allahu laka fiha ne ko yàlla na la ko yàlla barkeel fa atal arama mu dem seeti silmaxa sa fa qaal ayu cheyin ahabu ilayk mu ne ko lan nga gën a bëgg yow ci àdduna qaal an yarudda allahu ilayya basari fa ubsira annaas xanaa yàlla doon la ma sumuy bët rek ba ma mën a xool nit ñi jàkkarloog ñoom fa masaxahu mu daal di koy masa fa radda allahu ilayhi basara mu daal di delloo ci moom la nga xam ne mooy bëtam qaala fa ayu maalin ahabu ilayk mu ne ko ana alal loo ci gën a bëgg qaala alganam mu ne ko ak jur fa utiya shaatan walida mu jox ko benn gàtt boo xam ne day jur fantaja haazaani wa walada haaza mu daal di jur lu bari ñaar yu jëkk yee bii jur lu bari fa kaana li haaza waadin min ibil min al ibil kii am xuru giléem wa li haaza waadin min al baqar kee am xuru nag wali haza waadin min al ghanam kee am la nga xam ne mooy xuru ay gàtt mi ngi noonu waaw mbokk bi daf doon wax. ñaa ñaawat mooy lan. waaw. waaw. ala ala kulli xaal mooy. lay muhim rek mooy ñaawat laam bopp ba amul na góom ak amul góom waaja la ko ittee doon mooy bopp ba amul karaw mooy dafa doon koo xam ne nii bopp ba dafa fondaaraloon loolu nag mën na ànd ak i góom wala comme mën na bañ a ànd ak i góom wallahu sub mi ngi loolu wallahu naam naam naam almuhim ala waaw mi ngi loolu almuhim ala kulli xaal dikkal na léegi waa ji nga xam ne moom mooy ki nga xam ne amul karaw mu ne ko waaw yow lan nga gën a bëgg tey ci àdduna mu ne ko li ma gën a bëgg daal mooy yàlla may ma karaw ni nga def mbooloo mu ma dem ñu xeet ma dama bëgg am karaw mu daal di koy raay rek karaw ga daal di génn loolu muy wan kàttanu borom bi subhanahu wa taala muy def lu ko soob mooy alxaaliq di bind lu ko soob jàll waxal ci saa si karaw ga daal di génn waa ji kontaan lool mu ne ko loo gën a bëgg ci alal mu ne ko man daal nag laa gën a bëgg mu indil ko benn nag bu ëmb ne ko yàlla na ko yàlla barkeel bàyyi ko dem yoonam dem ca beneen gox ba fekk fa benn silmax mu ne ko saawa yow loo gën a bëgg ci ci àdduna mu ne ko xanaa rek ma xool rek ba gis nit ñi gars yi li ñu yàlla may xéewal la de yàlla na yàlla sàmmal ñu ko jàkkaarloo nit ñi di leen xool loolu loolu xéewal gu rëy la tafsir yu bari nag lañ ngeen dégg ma ci wax benn ku ñuy wax Stevie Wonder ñii daan déglu musique bu yàgg xam nañ ko àdduna yépp xam ko mu nekk milliardaire daana wax ni silmax la woon daana wax ni sama trésor yépp bu ma ko mënoon a joxe xool àdduna rek gumbawaat jaral na ma ko xoolal loolu xool nit ñi rek gumbawaat jaral na ko te xoolal mbokk ngay dégg nit mosoo gis nit dégg nag mosoo gis nag dégg géej mosoo gis géej dégg garab mosoo gis garab xam nga loolu lu metti la gis ngeen su ma mënoon daal xool nit ñi rek loolu laa gën a bëgg tey ci àdduna waa ji raay ko rek mun a xefet xool xefet xool kontaan lool mu ne ko loo gën a bëgg ci alal mu ne ko xanaa ay xar ay gàtt xar ak bay arab daan wax ganam xar ak bay laa gën a bëgg ay gàtt mu daal di koy may benn gàtt bu ëmm ne ko yàlla na la yàlla barkeel daal di dem bàyyi ko foofee mi ngi noonu
ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت
من ثم أتى الأبرص gannaaw ba mu delluwaat ca ka nga xam ne dafa gaana woon fii suuratihi wa hayati ca melokaa ca melokaanam ba jëmmam ja ak melokaanam ba ay melokaanu faqiir ku sonn fa qaala rajulun miskin qad inqataat bihi xibaal fi safari mu ne ko ay yow diw man day góor miskin la dog na ci man samay pexe ci sama tukki bi fala balaaga lii al yawma illa billahi summa bik amul lenn lu ma mën a delloo sama dëkk tey lu dul ndimbalu yàlla ak xanaa ndimbal boo ma dimbali asaluka bi lazi ataaka lawna al xasan maa ngi lay ñaan ci ki ne may melokaan bu rafet bi wal jild al xasan ak der bu rafet bi wal maal ak ak maal al alal ju bëri ji nga yor maa ngi la ci ñaan rek ba iran benn gileem kese ataballahu bihi fi safari ma daal di koy jox ko ci sama tukki bi ba man caa yegg fa qaala alxuquuqu kasira mu ne ko hey alal jëral àq ji ma ci war daa bëri lool dégg nga waa ji na ko mais fa qaala ka anni arifuk mais yow mel nga ne xamee naa la de alam takun abrasa yaxziruka naasu faqira est ce que du yow yaa nekkoon ci dëkk bi gaana goo xam ne amoo woon dara nit ñi daan la daw ba pare nga nekkoon ku ñàkk fa ataaka allah yàlla jox la alal ji fa xaale hey innama waristu haha al maal kaabiran an kaabir mu ne ko mukk ci àdduna alal ji dama ko donn suñuy maam ak maam ak maam ka gën a mag gën a mag ba mu bari nii فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت mu ne ko bu dee da ngay fen yal na la yàlla delloo fa nga nekkoon bu njëkk wa atal aqraa mu dikkal waa ja nga xam ne amul woon karaw fii suratihi wa hayati ci melokaanam ba ci jëmmam ji ak melokaanam ba fa qaala lahu misla ma qaala li haada mu wax ko lu mel ne la mu waxoon ku njëkk ka wa radda alayhi misla ma radda haada kooki tontu ko lu mel ne la ka lay tontu fa qaala in kunta kaaziban bu dee ne dangaa nekk aji fen fa sayyaraka allahu ila ma kunt yàlla la yàlla yóbbuwaat ca la nga meloon mbokk sunu boroom mi dogal dogal na waa ji joxoon giléem bi di gaanaga giléem yaa ngi jur di jur di jur ba mujj xur wi mu nekk day fees delleeg giléem lépp moo ko moom léegi sunu boroom yàlla jalla wa ala yónniwaat malaaka bi na ko demal ci sama jaam boobee bii paa mu ñëw indi melokaanu faqir jàng nañ dimanche passé jibril alayhi salaam dikkal yonent bi alayhi salaam ci saxaaba yi am de ban melokaan la ko dikkee melokaanu góor goo xam ne karoo gaa ngi ñuul kukk yëre yaa ngi weex tàll kenn gisul ci moom melokaanu tukki amaa kii nag moom malaaka bi mi ngi jël melokaanu ku son yëre yaa nga froissé bu ñëw fekk waa ji mu tiim gélém yi mu ne ko ay diw man day damaa nekkoon ci tukki ñëw ba fii sama yóbbal jeex oo ma waruwaay oo ma dara gannaaw yàlla day yow rek laa yaakaar tey ma bëggoon yàlla mi la wërsëgal sa alal bi nga may ma ci benn giléem bu mu mën a war rek ba yegg sama dëkk loolu bi mu ko waxee mu ne ko xoo àq yi ma war ci giléem bi daal daa bari moom daal mënu ma cee joxe kii daal li ma ciy def ci àq bari na lool gis ngeen te day kàcc waxul dëgg ndax bu dee nee kii di ibnu sabil di miskin mi ngi nii mënoo ko dimbali ci dara kon kooku du dimbali keneen am déet ak yi ma ci war daa bari waa ji na ko waa mais man yow dafa mel ne xam naa la de yow di ay kaanu diw bi fi nekkoon amoo dara nit ñi daan la daw mënoo ko man li nga wax moo ko de yow man alal ji samay maam amoon alal samay bàyyi di ci liggéey ñu fi liggéey muy bari bi bari ba toll nii nga naan ma yaa fi ñàkkoon ak yaa fi gaana woon du man de gis ngeen mu ne ko bu dee ne da ngay fen de yàlla la yàlla delloo ci da nga meloon mu ne ko waaye jógal fii gis ngeen waa dina ko am baax na daal di dem gis ngeen loolee mbokk mbokk ni lum ñuy jàngal moo dina ne doomu aadama yi da ngay gis lu bari nit ñi ñàkk a sante yàlla ni ñuy bëggee alal ak ni ñu cay ñàkk a sante yàlla mais ñu noonu waa ji départ wàcc ca waa ji nga xam ne amul woon karo wax ko lu mel ne la mu wax gaana bi fekk mi ngi yëg xuuru nag mu ne ko damaa bëggoon na nga may ma benn nag boo xam ne su ma ko lijjantee danaa mën a fexe ba de yëgg sama dëkk mu ne ko man mu ne ko man àq yi ma war ci nag yi ah daa bari eh kii li ma ci war a def daa bari amul daal mënu ma cee joxe dara mu ne ko yow ndox mi ay juum ñu fi nekkoon amoo woon dara nit ñi daañu la saboote foo mën a toll mu ne ko man ah déedéet da ngaa jaawale de man nag yi samay maam ak maam ñoo ko moomoon dañ koo donnante ba mu yegsi ci man bari nii mu ne ko bu dee da ngay fen de yal na la yàlla delloo ca na nga meloon daal di dëddu woon ko gannaaw daal di jubal ca la nga xam ne mooy silma xaba
wa ata al ama fi suratihi wa hayatihi fa qaal رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك متفق عليه
malaaka ba départ na ñëw wàcc ca silmaxa sa te melokaanu faqiir bu ñàkk ba wa atal ama fi suratihi wa hayati noonu la dikkee silmaxa ba ca jëmmam jaag melokaanam ba fa qaala rajulun miskin wabnu sabil in qataat bihi lxibaal fi safari ay waay nit benn góor gu ñàkk a ngi nii nekk doomi yoon dog na ci man samay pexe ci sama tukki bi fala balaaga liya al yowma illa billahi summa bik amul lenn lu ma mën a jottali sama dëkk tey xanaa lu dul ci ndimbalu yàlla agit ci yow asaluka billazi radda alayka basarak shaafan ataballahu biha fi safari maa ngi lay ñaan ci yàlla mi la delloo sa gis gi benn gàtt rek ngir man ci sukkandiku ba yegg sama yeggale sama tukki bi fa qaala mu ne ko hey qad kuntu ama man dama silmaxa woon fa radda allahu ilayya basari yàlla delloo ma sama bët fa xuz ma chita dina lu la neex ci gàtte wa da ma chita bàyyi fi lu la neex ci gàtte fa wallahi ma ajhaduka al yowm duma la sonal ci dara bi cheyin axastahu lillah ci lenn loo xam ne jël nga ko te fekk yàlla tax nga koy jël waa ji fa xaala amsik maalk mu ne ko téel sa alal fa innama btulitum yéen ñett ñi de yàlla da leen doon nattu faqad radiyallahu ank yàlla gërëm na la yow wa saxita an saahibayk waaye sànji na mere na sa ñaari saxaaba yi sa ñaari àndandoo yi kon mbokku malaaka ba jóg na ñëw ci silmaxa bi ki silmaxa woon démb tey mi ngi tiim xuru ay gàtt mu ñëw nga ne ko ani miskinam ne ko ah man day miskin la dama doon tukki ñëw bi fii am jafe-jafe ba bëggoon rek nga may ma benn gàtt ngir ma mën a yegg sama dëkk mu ne ko xay xanaa xamuma man man damaa silmaxawoon uma dara gis ngeen damaa silmaxawoon uma dara yàlla ci mbaaxam delloo ma sama bët wërsëgal ma alal ji waxuma benn gàtt waaye jëlal lu la neex ci gàtt yi bàyyi lu la neex ci gàtt yi amul lenn looy jël ci jël ga fekk yàlla tax man la koy xañ mi ngi noonu bi mu waxee loolu mu ne ko man de yàlla muy yónni da leen doon nattu yéen ñett ñi yow nag yàlla gërëm na la sa ñaari mbokk yi nga xam ne ñoom ñépp ñoo bokkoon benn dëkk nit ñi xam leen sa ñaari mbokk yi nag ñoom yàlla sànni na leen mere na leen loolu mbokk lañ ciy gën a dégg it nattu yi bari na te bari na kuy gën a jege yàlla mooy silmaxa silmaxa da ngay gis Arabie Saoudite boo demee imam yu bari ay silmaxa la ñuy doon da ngay gis mufti ya fa nekkoon ka fa nekkoon di ka nga xam ne mooy Abdul Aziz Bun Baz si lu ma xam ne woon nekkoon daanaka bibliothèque buy taxaw gannaaw ba ka fa nekk ci léegi muy Abdullah mi ngi noonu moom it da ngay gis seen maxal la ba tey waaw ay kishkeek ay ñeneen ak ñeneen ay seen maxal lañu mais teewul yàlla subhanahu wa taala da doon def ñoom ay kawteef mais ba suñu jamono tey da ngay gis ne en général ni yàlla nattoo ay gaanaat yu deme noonu. néew lu ñu am responsabilité ci diine lu ci bëri dañuy tàng xol ñu noonu su ko defee ala kulli xaal résultat bi mooy waa ji moom nangu na ne man kat damaa ñàkkoon damaa loru woon yàlla moo ma xéewal defal ma lii gars yi suñu borom wax la in shakartum ay la azidannakum mooy xéewal boo ci sante yàlla waxuma yàlla da koy wattu mais yàlla da koy yokk yàlla waxuma yàlla da koy wattu mais yàlla da koy yokk amma ñi nga xam ne ne kafaru ah wala in kafartum inna azabi lashadid su ngeen ma weddee samay mbugal lu tar la looloo tax mu ne ko yàlla mere na leen te mooy kon la chaq ñaan nga leen malaaka bi ñaanaloon dana dellu ci ñoom daan seetaan seen alal ja alal ja dee ba jeex takk ku nekk ci ñoom feebar ba nekkoon ci dana dellu si waat ci yow kay dana gaanuwaat kay karaw ga dana dong toggaat dootul am dara lu tax ngir ñàkk sant boromam subhanahu wa taala kon nit lii mbokk yonente bi du léet du théâtre bu ñu koy wax ku ne ci ñun war na cee bàyyi xel bari ñu tey ay millionnaire démb amuñu woon dara wala seen bàyyi amul woon dara ñoo yàlla xëy xëy baaxe la loolee yàlla xëy xëy baaxe la gën la waay sant ci sa borom subhanahu wa taala sant ci sa borom xoolal képp koo xam ne nii yëg nga ne mi ngi nekk ci xaal ba nga nekkoon loo ko ci mën a dimbali nga dimbali ko ci yàlla tax loolee du yàq sa alal du wàññi sa alal bal day barkeel alal ji day yokk alal ji yal na yàlla wërsëgal ñu sant ay xéewalam yal na yàlla musal ñu weddi ay xéewalam mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain
الله أكبر الله أكبر